ça fait très mal que ça frères fait. nekk si ba léegi nii quoi ba léegi nii ñu si bi boobu ñu ah, depuis quand ils ont depuis gars def na def na avant koor un mois ñu un mois de plus encore koor gaa ngi dix jours avant koor gi ku les gars yi ñu ngi génn boobu léegi dafa ñaaw rafetul def pour expliquer quoi pour alerter pour alerter encore pour ñu onze détenus ak Ousmane Sarr mu ñibbi këram quoi parce que tamit am say doom ñu nekk ci kaso bi ñëpp génn bàyyi leen fa ñoom ñu nekk ci kaso bi ñu nekk ñoom kaso bi furo man loolu yàlla di kii dis bul def vidéo man damay def vidéo quoi man parce que man li nekk sama xol dama koy wax léegi nag bu ñu bàyyiwul tey ci vendredi bi ah lundi incha allahu rabbi lundi midi ñun ñu ngi buntu rëbës quoi mangi wo tous les toute la jeunesse sénégalaise bi ñi gëm ni Sénégal ñun ci yi ñuy def nii ci la Sénégal di libéré wo réseaux sociaux yi ngeen di xeeb daan bul def bul def sorté bul wax réseaux sociaux yi mo changer Sénégal li ni mo changer Sénégal li lañ régler tous les problèmes du Sénégal té ci lañ gëm fi lañ régler fi lañ régler problème Sénégal fi lañ régler problème Abdoulaye wat fi la régler problème régler problème Macky Sall fii la ñuy problème mu keneen ku mu mën ak problème bëpp sénégalais man nak damay wax ngir yalla quoi lundi incha allah bu fekkee bàyyiwuñu leen tay lundi inshallah rabbi midi maa ngi woote maa ngi woo képp koo xamante ni gëm nga ni Sénégal dañ ko war a libéré képp koo xam ne gëm nga ni dafa am détenu politique dañu war a génn ak parents yi nga xam ne gisuñu seen doom yi ba tey ñu nekk ah, foofu ñu taxaw fa pour la libération parce que duñu du leen bàyyi ci kaso bi ah ngeen nekk ci yeneen occupation duñ ko bàyyi ah parce que ku ne xam xam ngeen li si kaso quoi xam nañ ko benn jour kaso dafa metti man loolu rek laa amoon du may wax quoi par respect ngeen baal ma àq na

dañoo ñii kaas ñii wax ñëpp naan ay euh, ay non dañ leen xaar leen nii xaar leen dañoo tëjul seen i frère rek wala seeni i sœur wala ñoom ñu tëj leen si kaso bi fàtte leen foofu